ndeysaan finaaloo yàlla 14 bor lañu woon ba des ñaar ndeysaan maam du rampasis loog man ko loogola a jaare loog a suum loog fa ndoorog loog a mbam loog pasis loog a koy ak général Malika fils de Da Soumaré ndeysaan su ma duggee loog damay nuyu Njaay Asiris kooku lañ naan demee Njaay waaye Babacar borom ndoorog loog maa ngi koy ziar waaw waaw Farba borom fu juñ Grand Laye Diouf depuis Dubaï waaw waaw ko borom suuf loog waaw waaw ba moom bu maan la ay tànk lay bañ a gis moom maam Ndoura Mbasis numéro 6 moom lañ jàkkaarlool Général Malika moo ñu woon ginnaaw Fils de Daa Soumaré oho mani le 23 Fatick am na 5 millions ak Baol production tey sum production moo sauvé journée bi fi waroon a am nekkul woon bisam ndeysaan ndeysaan li gars di toog dimanche lamb du fi am mu am ko ndeysaan daal di koy tëgg moom su production yàlla na jàmmam yaa ko ndeysaan jëli na tànk ba général gis ko génne ko nee naa la maam du gisi tànk Maman Ngom Fils de Babou nee naa la déwénal gaa nga a ko joxe woon fii si arène Adrien Senghor nee naa leen su séeréer gaa ñam problème yow ba ngeen ñaan yàlla ma bañ a de waaw waaw Mame Ndour Romba ak général Malika teewoo ñu woon ginnaaw Mame Ndour la ñu jàkkaar lool général daan bu ki demi final Mame Ndour moo daan ki nga xam mooy Thiaka mooy nuyu sama mbokk alkaati yi jël doy bi teg ko si loxo hey rafetal na ko hey ku nekk rafet na jugaat talante nañ waaw waaw bële rek na jëli ko rucceeku hehe zéet yow maam du liggéey bëri ku nekk day war sa tànk morom boo moytul kàllaab bi dina si jeexee ma fàtte suma papa ji bàyyi sant Diop ndeysaan deh Ande ada Adama Jali Ngom ak lu lamb Sénégal suñu lamb bëgg naa leen ñoom fa bële lu 100 pour 100 Diop eh Ndidi Fall borom Jilas waaw waaw nee naa le 23 ak le 24 tàngaat la ñu jëm waaw waaw ay yooyu yëpp ci kii nii moom Papa Diop Baye Ousmane Diop ak Papa Diop waaw waaw. ehe Mame Ndour Amba Ciss waaw waaw Mame Ndour am na ngemb Mame Ndour dugg na am na ngemb bum na ko général rëppatal na ko général rëppatal na ko général daan na Mame Ndour général Malika Mame al fuxaan Général Malika jël na lamb ja waaw waaw